man loolu laay ñaan. le premier mars bu ñu ubbee làmb ji. kañ la événement yi commencé. waaw sans départ ci promoteur yi ah. parce que bu ñu ubbee làmb ji xam nga dañ koy ubbi comme temps normal bu ñu làmb ubbi na mois d' octobre mën nañ toog ba novembre décembre comment combat a commencé maanaam bu ñu ko ubbee c' est officiel administrativement mais tamit kon léegi li des mooy promoteurs yi jàpp ay date date yi leen di jox nag date yooyu nag mooy nekk date yu officiel yaa ngi dégg loolu moom defe naa ne ah euh, bu ñu yàlla bàyyee ma ma fi ak jàmm incha allahu rabi ba ñu ubbi ko le premier mars di si xëy na ci biir mars balaay dee du ñàkk xëy na ay combat dina am incha allahu rabi. waaw avril euh, de Guiers 2. ngi noonu ah combat bu nar neex yàlla nañ ko fekkee te tal ko ñu bëree ko que le waaye daal xam naa ne làmb la ci biir làmb yi combat boobu. loolu lu mu li mu wund mooy ñaari ñu bëree ñaari yoon match nul benn ñu dellu si Eumeu daan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 dóor mu daanu mën na ceene de parce que li tax mooy mën na ceene Eumeu Sène ku ne xam ne doo ragal. Mm-hmm. combat yu bëri mu jiyaar ku jiyaar ak Gris i jiyaar ak ki mbëri jiyaar ak ñoom Modou Lo. Eumeu mm-hmm. Sène kay combat am ku yebu xaar ci dóor mu daanu Lac de Guiers lu tax ñu koy woowee le penseur di Waalo. Mm-hmm. kon maanaam ci te ñoom ñaar ni ma leen gisee ci ay taxawaay ak seen façon am na liwaatoo boo xam ne bu ñu ko liwaatooyee am na ci jóg boo xam ne bu amee am na loo xam ne ku dajeek moom mën naa balaa nga yegg si nga yegg fa nga nga yegg teer. jaajëf sëñ maa ngi lay bëggee jërëjëfati